bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam la numéro un des carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay fa wax accès ba léegi dina ak société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si adduna wërngal këpp si liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéewal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewooti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité prix bu xéewale boo dul am faneen fu dul fii mani mbokku am nanu grès poli 40 sur 40 ak it grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 am carreau faïence sur 30 25 sur 40 si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin 30 sur amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité am na fi également ay MF fi dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk yi lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériels yu mucc ayib aju si wàllub caro bu ngeen accès fii si Touba xéewal caro boole magasin bu jënd di jaayaat dama damani jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllub sanitaire si matériel de qualité am nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu mu si mën a doon mbokk def seen ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal Caro si Touba 28 lépp yemb. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV ñi ngi am kontaan ak mbégte ci ànd ak yéen ci émission yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci biir Touba ah, tey nag euh, ñëw fii nga xamante ne moom moo di euh, première garage bu ñu waxee première garage euh, dugg ci mbedd mi nga xamante ne moom moo jóge première garage jëm fi nga xamante ne moom moo di Daara Khoudoss jaara fi nga xamante ne moom moo di Newga ñëw tey ngir fas yéene waxtaan ak askan wi nga xamante ne ñoo fi dëkkee ndax xam ngeen ne Rafah TV li ko tax a jóg mooy eh, di soxal askan wi seen ay soxla lay eh, dugg ngir fas yéene wut ca saafara ba tax na jamono yi génn doon ngeen gis ñu ngi def ay émission ci eh, di wax di jëm ci wàllum dëkk bi insécurité bi ay yéen demee ah, ñu demee nag ba gis ñi nga xamante ne ñooy waa ca kanam ñu def ay acte yu am ci biir dëkk bi def li nga xamante ne moom mooy ay lamp ci biir dëkk bi ngir leeral li nga xamante ne moom mooy askan wi tey ñu ñëw fekk ñi nga xamante ne ñooy askan wi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Daaru fii ci premier garage euh, ngir ñu wax seen euh, satisfaction bi nga xamante ne am nañ ko ci lii di lamp yi waaye tamit ñu waxtaanee ñoom ci li nga xamante ne moom mooy dëgg bi maa ngi jënd ak sama sama Serigne Diop nga xamante ne moom ci koñ bi la dëkk euh, ñu jox sa Diop kàddu gi mu nuyoo bu pare ñu jox sama yaay ji mu doog a nuyoo. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp. rawatina waa koñ bi ñu ma bokk dëkkal dëkk mu rafet lii nag day dafa doon loo xam ne lu bett la sax moo tax xam naa ne nii waaye bu doon lu ñu waajal la kon dana ëpp lii ndax lii bis ko fi defee sant na ci yàlla sant gi sëriñ bi bu baax waaw ndax si lii nekkoon loo xamante ni si daal lu ñu neex la daal. lu ñu neex la d'accord kon sëriñ yëpp moom la ñu waroon ñu nekk ci ñi nga xamante ne kii kilifa lañ ci koñ bi ñu sant baax a baax rek sunu sunu sunu sunu sunu xarit Elimane Sène nga xamante moom moo coordonné émission bi euh, ñu waxtaane ko ci diggante Touba fii jàpp daan xudóos ba mbaaree fépp rek ndax gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante ne euh, ca kanam def na ko moo tax tey ñu ñëw ci lamp yi gis ngeen ñu def ko émission guddi ngir wane ne lamp yi existé na te en plus gis ngeen leeraay bi tubaarkàlla macha allah yal na yàlla dolli xéwal yaa xati ñu lay jox kàddu gi itam nga nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur yi sant suñu Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak ñun taalibe dëgg yàlla Touba ca kanam rafetlu nañ ko trop ba fa rafetlu man a yem sant nañ leen tamit ba bu fa sant mën a yem dafa fekk ne nag lii nii dañoo bett rek ñun ñu bettee la rek waaye su fekkoon betteewuñu nii dinañ gën a kii bu baax a baax wax dëgg yàlla sant nañ leen ndaxte nii ñu ñimee nii ak ni ñu sañee nii sañee wuñu koon suñ koñ bii ak nii ko def ni rafetlu nañ ko ba foofu lu mën a yem kontaan nañ trop wax dëgg yàlla yaa Khady moo dégg kàddu yi nga xamante ne wax na ko euh, Babou ñu dugg ci laaj bu njëkk bi moom mooy koñ bi melokaanu koñ bi ndax mën nga ñu fàttali naka la meloon lu jiitu làmp yi di ñëw waaw koñ bi moom maanaam ko fi yàgg xam ni moom àdduna day dox waaye lu bëri comme ni dëkkuwaay yëpp la ab sanc ab sanc waaw ndax man fii sama papa moo fi dëkkoon yàgg na yan année nga yaakaar mën ngeen toxu si Touba yi. ñun année yi toxu si Touba gi xam naa ne ay quatre vingt cinq. ndax man quatre vingt neuf. année yooyu maa ngi doon xëy vingt huit te jamono yi fii laa jógee di xëy foofu noonu. nga xam ne daal université Sëñ Abdou bi ci sama kanam lañ ko. fondation fii. Mm, mm, mm, fondation bi waaw xam na doomam mag waaye lu bëri fekk na ma fi. waaye suñ tool kenn xamul mu doon. ci lu wér ci waaw. doxi doxin bi moom sant nañ ci yàlla. sant ngeen ci waaw. booba fekkoon na jamono yooyu koñ bi xawoon lëndëm xawoon. lool lool lool lool lool lool amoon na ay lamp ay poto ak lamp yàgg na fi. Mhm. waaye nag la ma ko waxee tamit tamit lamp bu amul lamp rek tàkku tamit. Ah, waaw daanaka moom suñu ne amut lamp ay tàkku. poto kese la woon rek waaw ah, poto kese la woon rek. Ah, waaw Touba ca kanam nag bi mu ñëwee moom. Mhm. moom. gën la gën naa la gën naa sant gën naa kii neexal affaire bi daal gën naa neexal affaire bi waaw gën naa neexal fii loolu yaaxat yi bu njëkkoon yéen ñi nga xamante ni yéen dëkk ci koñ bi xëy na yàgg ngeen ngeen fi daan dund fi jafe-jafe yu metti yu ay ay jafe-jafe nga ni fii nii boo ko xoolee sax xam ne ni Touba ca kanam liggéey nañ fi mm-hmm. yaa ngi gis ni xale ni ñuy simlee ni ñi me nañ fi mm-hmm. ñëpp am fit mag ñi am nañ fit fi ne ndaw ñi am nañ fit kenn ragalut a génn guddi léegi lu yëngu di nga mën a jóg xool ko ndax ba ci biir néegi sax dañoo leer mhm. Touba ca kanam daal ca kaw ca kanam rek sant mhm. nañ leen bu baax a baax mhm. sant ngeen sant ngeen leen baax waaw waaw ndax bërki démb bi sama doom ji trois heures du matin bi ma jógee man segment ànd dem ba taliba te soo daan jóg da ngay bu góor ànd ak moom wóoruma kenn damaa ànd man seg ndax kenn du ma ndax gis nga ni mel nii mel ñaan ñu dikk defaral leen ko wala mas ngeen a xalaat euh, joxoon ngeen ci ay jéego ngir ñoom ci Touba ca kanam ñu ñëw euh, defaral leen lamp yi wala dañoo jékki-jékki defar ko ñun moom wax dëgg yàlla daanañ ci def daanañ ci def ay jéego di ñaan pour nit ñi ñëw defaral ñu ko ak tamit ndaje mu ñu fekkee daal dinañ fa euh, wax daal suñu lu ñu mën daal ndax pour ñu dimbali ñu waaye wax dëgg yàlla ndimbal mi ñu am ci Touba ca kanam amuñu ko ci fenn ba ci yoon wi nga gis nii fii nii da nga daan gis nit di dem di tàbbi ci biir ndox mi ak màggal ngay sonn mm. am ay jafe-jafe mm. te ren moom màggal gi macha allah mm. tubaarkàlla ca ca kaw ca kanam lépp a baax normal suñu gan kenn amul benn jafe-jafe problème ndox wala problème lap ci ndox wala dara oto yi tamit kenn cangul kenn deful dara fii ay oto dafi daan càng ñuy fay xaalis bëri pour seppi leen ci biir ndox mm-hmm. lépp jógee na fi loolu loolu benn geste la boo xam ne Touba ca kanam def na ko a yilif a yéen yéen itam yéen a yéen a yéen a kilifa yi. Euh, léegi mu mel ne sécurité bi tamit bu njëkkoon naka la demee waaw maanaam sécurité moom maanaam fi ñu nii comme ni ko soxna si waxee léegi rek ku ñeme daal fi léegi nga ñeme. Mhm. waaye am na jamono moom. Mhm. nit ñi boo xasee jot. Mhm. surtout jamonoy sedd. parce que fii am na fii ab fii nii nga gis nii. ab école la woon. ab école la fecc moo am na benn guddi ba am te si entre neuf avant onze heures rek. am na ko fa ñëwoon benn suuf di doon bañ noonu. mais booba soxna si ne fii ki ma dëkkal nii. yëg na ko waaye. man la woo. ba ma woo ah que jigéen la te maa fi ne. suñu ma bañ a génn. ah oui ah oui ah, ah. nga <laughs> waaw waaye. bu doon guddi la xam nga ne. bu demee noonu. waaw Touba Kanam nag xaj na lamp yi ngeen a njëkk a proposé waaye liñ bëgg ñoom lu lamp yi bëri na. ndax fii. mbedd la moo xamante ni si la mhm. waxee. soo ma daan jógee fa bu nawet bi daan jot. xam nga sax di fukk lañu fay si ba daal xuddoos waaw ñaar fukk lañu daan fay ñaar fukk lañu daan fay quoi man fay naa ko ba tey waaw mhm. boole ko nag bu ñuy dem sax da nga xam ne yow li ñëw ba jar na deux cent mhm. ndax fa na dañ fi wiir ka fa mën a nekk waaye

ñu def 1000 francs 1000 francs yi ñu féetale ko ndax bëgg cee jàpp mhm. Touba ca kanam fii moom ñëpp am yéene jàpp ci mhm. ñëpp ci bëgg a jàpp ndax gis na ni ñoom ñi ngi doxal Touba mhm. Touba ca kanam daal ca kaw ca kanam rek macha allah autorité yi ne ci koñ bi maanaam ñàkkul ne am na quelques autorités yoo xamante ne ñu ngi ci koñ bi ñooñu nga xam ñi ngi di jàpp ci koñ bi wala koñ bi moom ñu ngi noonu rek autorité waaye ñun xale yi jeunes ci koñ bi ñoom ñëpp it jàpp nañ ci ndax avant ngeen di ñëw fekk na ñu jéem a wut seen i lamp lamp sax dañ koo fay bu ñu yëgoon tàll pour ngeen gisaale ko mm-hmm. ñoom xale góor yi defoon nañu seen délégation boo xam ne nii dañ koo def kii nu mu tuddati sax laay fàtte ah ñun la waay ñun la waay lañ ko tuddee bu am xew dañ la ci jàppale ñu dem di ko def ba mujj ñu ut ay lamp mhm. lamp yi dafa leeroon ba bëgg de avant ngeen di ñëw bi ngeen ñëwee nag la lamp yi gën a am doole yooyu mhm. ci lañ fayee koñ bi mhm. doon nañ jéem ngir mën a def li nga xamante mooy suqali seenu koñ jëmee ci wàllum li nga xamante mooy leeraay bi doon jéem a def ay lamp ba ah, sos nañ sax association tuddee ko ñun la waay donc kon loolu nekk na loo xamante ne am solo la sëñ bi eh, léegi li ci topp moom mooy li jëm ci wàllum euh, koñ bi ba tey mm-hmm. euh, ndax tamit euh, koñ bi manko yi ji war yi nga xamante ne war naa am ci koñ mm-hmm. ndax xam ne ku nga ne am na wala wala manko des waaw manko gi moom mm-hmm. ndax diirub ma fi dëkkee ba léegi comme la ma ba yàgg na te yàlla na wax dëgg yàlla mosuma jógee sama kër gi ñaata si ci koñ bi wala ma jàmm ji moo am na ah, ji am na góor ñi ay jàmbaar la waaye jigéen ay jàmbaar la ñu ndax sax alxames fi mu toll nii. nit ko waxee tali bii ba tali bee koñ boo romb rek. comme ni ko defee ci Touba gépp rek. dañ koy bale waaw. mu wax moom ñun muy autorité bi. waaw mhm. yooyu mhm. moom. kii wuñu ko ndax avant mhm. lamp yi di ñëw. kon na ko soxna si wax am na lamp yoo xamante ne si ñoom xale yi ñoo ko fi manqué def ko dajale seen i téeméer ak seen i ñaar téeméer. doom ab kii. ci bàggal gi ñu bu nekk dafa ne fa lamp yu mag yoo xamante ne dinaa tàkk koñ bi ba 30 ba day leer nañ. Mhm. waaw. d' accord waaw léegi mu mel ne xëy na yéen a yëkkati kàddu waaye li ko commencé université bi ba biir mbaar ya mhm. gis nañ euh, leeraay bi nga xamante ne mi ngi koy leer actuellement mhm. xëy na yow ci Touba nga dëkk gis nga liggéey bu am solo bi nga xamante ne Touba ci kanam def na ko jaare ko ci corniche bi àgg ba ci mbaar yi population mbaar ya ak di ko di ko di ko wër noonu lan nga jàngate foofu noonu waa tubaab fi mu toll nii moom comme tabuy trop trop moom daal moom na lépp ca kanam daal moom daal la ci lu ju baax la ñuy wax murit la ñu sant mooy kenn ku nekk def ko si bopp def ko ni nga xamante ni si boo xëyante ji su am ab dépense moom la jaral xëy dóor say waar pour am loo dundee ji Touba ca kanam kenn ku nekk noonu la war a saxale noonu la war saxale waaw ndax bépp murit boo xamante ni si yaa naan su ma yoroon li def lii Touba ca kanam di laaj ñaar téeméer laaj nga xam boo calculé noonu par weer daanaka chaque jour juróom-benn dërëm la yu teg tuuti. Mhm. kooku lu waay kii loolu moom du dara. du dara waaw. kon kenn ku nekk war nga mën a am yéene si lépp loolu noonu. Mhm. kon bu ko defee noonu. Mhm. bëgg nañ ñëpp barkeelu ci. barkeelu ci barkeelu nag moom Amadou Ba amatu yem. amatu yem d'accord loolu am na solo sama yaay. mbaar ya yooyu itam xëy na jigéen nga waaye njaboot nga ah, xëy na sax ku daan yónni sa doom heure bi bu ko romb mbaar ya doo ko may mu jaar fa ndax la fa nekk ci insécurité mhm. bi ñu gisee làmp yi am ci mbaar yi wër noonu ba ba leeraay bi demee ni mu demee lan gi njëkk yéen ñi nga xamante ni yéen a yéen ay wàcc xanaa kontaan rek doolee bég ndaxte wax ay jamono ñi ma woo romb mbaar ya dem heure yi mhm. kenn xalaatu ko woon te nekk nii ci tuubaa fu la neex mbaar yaak fépp ci yem koñ nga xamante ni Touba ci kanam dugg na fa rek mhm. fi ne nii ñime nañ ñime nañ ndax ku ne gis na liñ fa def ñëpp kontaan ci ci mbaare léegi si ni ñu ko def ndaxte mbaare kenn ñimewu foon bëccëg sax am na ñoo boo sàggane tuuti sax doo fa mën a ñime waxuma laa nag heure yi mm-hmm. te heure yi léegi fu la neex ngay dem comme ni ma ko waxee nii rek mm-hmm. Touba mm-hmm. am looy joxe wala nga am looy def daal moom jàpp ci rek ñëpp jàpp rek waaw ku am looy si Touba ca bi ba tey route jàpp naa ne ndaxam yéen ngi xalaat tali ko ñu tali leen ko wala tamit ñu ngeen ko bëggee ñu ko. moom tali lañ ci bëgg. waaw mooy bu jógee bi jógee premier garage. dem ba dem ba dem ba Darou Khoudoss moom bu ñu sañoon tamit ñu defal ñu ko tali. ndax ci la xéewal gi gën a yokkoo. ci lay gën a baaxee ci comme ça sareet yeeg yooyu. Mm. waaw ndax yoonu suuf bi ni baax na sax nag ndax ni meloon ni deñ na. waaye tamit mu gën a rafet gën a baax tamit bu ñu ko gën a baax rek mhm. gën a rafet rek gën a jekk day gën a rafet a jekk gën a xam nag bu ñu waxee nag Touba Ca Kanam def nay làmp ba pare mhm. est que tamit nag ko ca war mhm. lañ ko war a mën a sàmmee nga yaakaar ne mu mën a continuer man day keroog bi nga xam te na ko fi yéegi tali ba sax laa laa laa ko jëkk a wax mooy poto yi ci salaire yooyu noonu ba toogalaat ju ci yii ñu ko fa sàmpe ko laa leen dee kenn ku nekk day làmp yii yaa ci war doon sa police bopp boo xamante ni si képp ku ko mu dib saret mu dib oto ku mu mën di fekk dama lijjënd ko ak moom ci njëkk ak tiranga mu dem ci ña nga xamante ni si ñoo ko yilif ñu lijjanti ko ak moom. ñu lijjanti ko ak moom. waaw d'accord waaye man ku ma ku ma ku ma gis nga nga nga nga ci moom. Mhm. lu ma mën ci dénoncé maanaam pour maanaam ña ko yilif mën caa jot jot léegi. Mhm. danaa ko su ma ko mën danaa la topp ba fa nga dëkk. ba su ma xamee ba xam ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ñoo yor dogal boobu noonu naa ko dressé ak ni leen moo ko def moom moo ko def noonu am na solo parce que oto yi parfois ñu bëkk benn oto mu daanu ñu daal mu daanu tamit loolu tamit day indi day indi day indi ñàkk sàmm mhm. yaay yaay itam sàmm li nga xamante ne moom mooy euh, lamp yi ba nga xamante ne li Touba ca kanam def buñ dikkaatee buñ dee yokk si leneen moom buñ defaati lamp waaye leneen la def waaw loolu moom dëgg la. ndax bu kenn ku nekk jàppee ni yow yaa ko moom rek sàmm gi dina mën a nekk. man damay jàpp ne man lii sama alal la keneen tamit dafa war a jàpp ni lii alalam la ndax bu baaxee ñun la ko loolu nga xamante ni fu la neex daal lu la comme bëccëg daal war a sàmm lamp yi ku da ngaa a nga ko war a jubbanti defar yi di ñaax mag ñi ba ñuy moytu yàq ñun ñëpp a yàq yaakaar ko moom suñu alal la te mbir booy xamee ni sa alal la waru koo yàq mbokk yi kon ñu ngi noonu émission baa ngi noonu di dem muy émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi ñu ñëw fii tey fi nga xamante ne moom moo di euh, fii di euh, Darou Khoudoss kon kon bii moo tudd. exact premier garage la wala. premier garage bi Darou Khoudoss la bokk. Darou Khoudoss la bokk. waaw kan seen chef de fii Badam Seye Mbaye Seye moom nekkoon chef de chef de quartier bi. Mm, Badam Seye mais bi mu fi jógee. ku mm. dox Cheikh Ndiaye Sikkim. Cheikh Ndiaye Sikkim. Sikkim waaw Sikkim moo nekk chef de quartier bi. mu def. ci lamp yi. wala tamit. kooku nag bu ñu ko bu ñu ko yëgee. bi ñu ko faral dafa yàggagul moo tax. Ah. bi ñu ko faral dafa yàggagul. Mm. parce que bëgg démb rek. démb ci topp. démb ci topp la woote benn daje këram. Ah. di wax ci affaire u parent yeeg xeet yi fatante xew yi ngeen waxtaane jamono yooyu ca ca këram ci ci la jëm ci wàllu làmp yi d'accord kon xëy na xamante ne Touba ca kanam def na ko ci euh, biir Touba rawatina fi ne fi nga xamante ne moom moo di ga gis ngeen làmp yi leer na leeraay boo xamante ni ndaw ñi tamit euh, gis nga ni nga xamante ne noonu la ñu wëre euh, bu njëkkoon ndaw ñu ko woon def mu mel ne tamit am ku ci nekk tamit wax ci actualité yi nga xamante ne xew na mm-hmm. laaj bu mooy fi seetlu nañ fi ne Sénégal tàng na. Mhm. jëm na ci wàllum euh, lii di euh, gis nañ actualité bi gën a fës moom mooy. Mhm. Euh, président Sonko ak mhm. coow li nga xamante ne am na diggante mooy justice ak yu ñaan yàlla yàlla ci yàlla wis ndox mu sedd. en tant que waajur. lan ngay conseil xale yi. ñu doxee ko ci wàll woowu noonu ci wàllum dal ak jàmm. ànd ak dal tam kilifa rek ndax. gone man na làqu yëg waaye saa yu daanoo mag ñi ñëw moom gone mën na mag dina ñëw comme nag moom mag moom bu ci njëkkati moo ko sax rek amul depuis départ ak ak a def surtout fii ci Touba fii ci ndigal la ñuy déglu ndigal la ñuy déglu la ñu amale yàlla seer na bu pour affaire di xew ba léegi dur taal sama rajo bi dégguñ ci wax xam naa ne bu demoon moom la ñu xaar jóg wala léegalam fàtte fàttum mbedd mhm. moom jóot ab secrétaire ci dëkk bi ci digg ci digg waaw yaay boy yaay nga xëy na yaay itam nga sensé nga lancé dernier message muy ndaw ñi pour jàmm am ci réew mi ñu gën a mën a dal nga xam ne lii moom day jàll rek mhm. euh, naka nga koy waxee comme ko mooy xanaa ñu góorgóorluwaat rek ku ne fonkaat sa bopp te nga gën a maandu doolee maandu murit moom ndigal rek comme ni ko sëñ kii waxee sëriñ Diop waxee rek digg ndigal bàyyi tere mhm. dégg say waajur buñ la yemloo nga yem fa fuñ la toog yem def loo nga def ko rek. waaw pare um, Sonko Macky Sall moom yooyu yëpp moom ay kii la rek ñun daal ñun waa Kër Sëñ Touba lañ daal am ci yenn ci yooyu. Ah, déedéet jërëjëf mbokk yi kon uh, émission baa ngi noonu dama leen di bàyyi rek ñaari tàggoo. waaw ah. bàyyi yëpp di sant nag maanaam mboolem koñ bi ñu dëkk nii ak ñu fi dëkkal nii te dëkk bi rafet lool ñu jël ci bopp bi tamit suñu bàyyi fi nekk ak soxna soxna Mbacke di doom gi suñu Abibu Mbacke nekkal fi nga xamante ni kon moo fi nekkal Touba ca kanam ba képp koo xamante ni si yaa ngi liggéeyal Touba ca kanam sax ci moom ngay dem xam nga moo lay wax fi ngay jaar rek ni ngay aw ba bolok yooyu nga xamante ne si ñu ngi koy joxe sax ñu koy weccee ko ne muy mi fa addi yooyu sax man fekk sama place sax indil na wax bolok boo xamante ne ma ko demee sama place ne maa ngi fa tax benn affiche boo xamante ne si pour loolu la waaw. yii sax maa wële si woon a jël si kaddu ci ci wax ci turu koñ bi dara te moom demuñ ba fa moom. waaye nag da demes na fa fekk fekke su ko fa iliman seen sa waroon na ko pour xabal ko ni den fii ñëw yàlla dogal moo am jotu ko waaw waaye su waaw waaw waaye daal moom ñu ngi koy sant di gërëm daal di leen yàlla yàlla yàggal yàlla yàlla yàggal taxawaayam waaw yàlla yàlla yàggal taxawaayam daal ndax dëkkan dëkk mu rafet waaw waaw te ku baax la wax dëgg yàlla yéen na ñëpp jàmm ah euh, santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi sant nañu Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér ak ñun taalibe yi mm-hmm. di sant suñu xale yu góori koñ bi ak magi koñ bi koñ bi li ma fi gis gisuma ko ci benn koñ mm-hmm. am nañu yar am nañu teggin am nañu kilifa su ñun suñu koñ bi nii nii xale yu góor yi lu baax lu nekk ñu ngi yëngu kenn du leen gis ñu yor di football kenn du leen gis ñu dem ca terrain di entraînement ñoom daal bisu àjjuma dem nañ daayira Mhm. yal na yàlla def jàmm xéwal bu bari ci biir Touba wàcc ko ci ñëpp ci barke Serigne kanam nag moom ca kaw ca kanam rek incha allah incha allah jërë ngeen jëf Touba ca kanam ca kaw ca kanam moom mooy kàddu yi yaay booy mujj ah, waxtaan ak ñun waaye tamit moom la ñëpp ci la moo xamante a ñëw gi rek la ñuy jooy mm. ah, li nga xamante moom mooy lamp yi nga xamante ne def nañ ko ci ah, corniche bi rawatina fi nga xamante moom mooy Daaru Xudóos ba jaaroon li nga xamante ne moom moo di mbaar ya ak fépp foo xamante ne jaar na fa rek li leen di kaddu yi nga xamante ne ñoom ñaar ñoo ko yëkkati waaye kaddu la boo xamante ne dañ ko yëkkati ko yëkkati ko ci turu boo xamante ne euh, ñoom askan yëpp ko waxal ndax mbégte ah, la ca ah, xamante ne ñu ngi jàpp ci li nga leen sàmm leen dafa leen saaruf daara ni daa taxawal leen waaye di ñaanal baax a baax mboolem kilifa yi yàlla na yàlla may leen fan gudd ak wér yaram euh, kon di sant baax a baax a baax nag Elimane Fall nga xamante ne Elimane Sène nga xamante ne moom sunu sunu sunu xarit la euh, sunu sunu lépp la ñu nag moom ñoo bokk école bi ñuy jàngale muy ndaw lu lu lu lu lu yàlla baaxal ah, ba tax na lii ba ko rek mu taxaw ci taxawaay bu am solo bi ak mboolem ñi nga xamante ne assisté nañ émission bi ñi sama ginnaaw ak ñi ci sama ah, côté ndeyjoor càmmoñ ak xale yi taxaw ñu ñëpp ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla def leen mag ñu am ñam sant ñëpp gërëm ñëpp di joxe dig daje ci yeneen jamono wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam le numéro un des carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay fort accès ba léegi yéen société bu nu ràññee loolu si wàllu wàllub carreau si àdduna wërngal këpp si liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéwal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewoti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité prix bu xéewale boo dul am faneen fu dul fii mani mbokk am nanu grès poli 40 sur 40 akit grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 waaye tamit am carreau faïence 20 sur 30 25 sur 40 ay antidérapant si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant sur amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité am na fi également ay ñetti dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériels yu mucc ayib aju si wàllub carreau bu ngeen accès fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllub sanitaire ci matériel de qualité am na nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu si mën a doon ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si biir Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal caro si Touba 28 lépp yemb